ñii de standard indi nañ li nga xamante ne mooy euh, Juwara Condemns Jungula's release euh, moom euh, ñoom ñi nga xamante ne mooy standard indi nañ ko comme ni ngeen ko gisee noonu leneen liñ fesal tey ci suba si nee nañ Janneh commission Claire's Prince Ibrahim leneen tamit luñ indi ci xibaar yi di Tarin Jungula Jeng confessed to multiple killings and um, beneen tamit buñ indi ñu ne man escapes life imprisonment for rape Eh, ñoom ñi nga xamante ni mooy eh, ñii di eh, standard. standard waaw su ko defee ñu. dugg ci waa ci dugg ci biir xibaar yi nga jiital xat bi gën a fës. Mhm. mooy veteran politician politician Lamine Juara has said there should not have been any reason valid enough to release the notorious killers of the Jamiar. Wa was or who served a local government minister on the Jami. Said the three junglers had confessed to crime of torture, extrajudicial execution, and, full, and enforced disappearances, and therefore, under no circumstances should they be released. Mr. Juara said in the, his advice to the Minister of Justice to resent the decision to release the junglers, adding that he instead should prosecute them immediately. Mm -hmm. Wow. Euh, moom mi nga xamante ne mooy waa Juwara waaw nekkoon ministre si jamono Yaya Jammeh mhm. daal moom àndul ci ndogal bi nga xamante ne ministre bi jël na ko pour bàyyi euh, ñi nga xamante ne mooy ñetti jongla yooyu moom sax jàpp na ne loolu moom euh, wa nekkul li war a am ndax ñoom dañ nangu ne def nañ mooy ñaawtees yi nga xamante ne wax nañ ko waaye sax moom mu ngay wax advice ministre bi mu dellu ci ci dogal boobu bu mu bàyyi ñoom nga xamante ne mooy ñooñu mu dellu ginnaaw waaw mu dellu si ci loolu teg na si sax instead li mu war a def mooy fexe ci nu mu gën a yóbbu leen ci kanami yoon ñu yóbbu leen ci kanam yoon ñu àtte leen waaw kon defe naa ne ay kàddum la te gis-gisalam ci li nga xamee ne moom moo nekk dogal boobu ministre of justice jël ak li nga xamee ne moom moo nekk euh, cabinetam ci bàyyi ñi nga xamee ne ñooy jongulas yooyu ñu tuumal wala ñoom ñi indi firnde ci faat yi nga xamee ne ñoom def nan ko kon loola moo gën a fës ci niñ ko déggee ci kàddu yu waa Diawara ñu ñëw ci beneen ci biir standard waaw ci euh, standard ba léegi ñu wax ci Diané commission Class Prince Ibrahim Uh, Gambian business Prince Ibrahim Sanyang, the proprietor of Royal Africa Holdings, among several others, all of which were frozen, uh, in the work of the Janet Commission inquiries have been a uh, clean bill or have been given a clean bill of healthy uh, by the Commission. Um, the, a letter written to him by the Commission which investigate the financial activities of former President Jammeh and his close associates state that they have not made uh, any advance findings against Mr. Sanya on his uh, companies Wow, moom daal fu mu nekk nii leeral nañ ay mbiram Diané waaw ci Diané euh, commission bi. tuuma euh, yi teg woon ci kawam ci ne dafa taxoon. ci koom-koom ak. exactly alal li mu amoon gi fi nekkoon ak alalam moom ci moomeelam. waaw amoon na lu mu laalee ak njiitu réew mi lim lim amoon wala lim waxoon amoon na ko ci réew mi. Mm-hmm. Euh, waaw ñoom nag gannaaw bu ñu defee seen gestu leeral nañ moom dañ ko clair. fu mu nekk nii daal lépp li nga xamante ne moom. toppoon na ci waaw toppoon nañ ko génne nañ ko. Mm-hmm. bind nañ ko leetar wane na daal. fu mu nekk nii daal mooy loolu euh, moom mi nga xamante ne mooy Prince Ibrahim. Prince Ibrahim mun naa dox yi soxlam continuer business am. Ah, te dara teguwul ci ndoddam. waaw ah, waaw loolu dal na xel. kon lii nag lañuy xaar ci Diané commission bi results yi di génn process yi di génn mm, ci ni nga xam ne moom mooy gis-gisu li ñuy xaar ci ñoom ñu dem ci beneen xibaar ci biir standard newspaper. waaw ci standard balaa ñoo ñëw ci xibaar bu mujj bi rek ñu wax tuuti rek ci jongla bi ne contradictions of his involvement in the alleged human rights violations mm. of the patrol team, former Jungle Ali Jan, uh, finally puts his acts together and reveal his role in multiple killings mm -hmm. as confessed by his colleagues at the TRC wax nañ ci mm-hmm. uh, mu ngi noonu ñoom indi nañ ko moom Aliou jeng, Dieng mm-hmm. démb gannaaw nga xamante ne kon ni ñu ko waaw ah, contradiction si bari woon na waaye mu mujjee nangu ne moom tamit bokk na si ñi nga xamante ñoom ñoo waaw def ñaawtef yooyu waaw lii rek lañ doon xaar ci moom comme niñ ko waxee ci sunu studio story bi rek mooy ne wax dëgg yàlla euh, defe naa ne doomu aadama ba deesa na la dëgg rey mhm. ak lu mënta xew ndax yàlla suñu borom sax loolu lañuy sant ak diina boo mënta gëm fexeel ba dëgg na la may li nga am dëgg na la xañ loo ñàkk waaye bu fekkee dëgguwoo ci say kàddu sa gis-gis ak sa doxalin kenn du mun a am gis-gis yu njoxtu ne xel mun na koo nangu loolu mom wa mu ngi noonu daal fa mu mujjee foofu la waroon a rek exactly su ko defee ñu uh, ànd ak xibaar bu mujj tey nee uh, man escapes life imprisonment for rape uh, comme niñ ko indee the Supreme Court of the Gambia has set aside the sentence of life imprisonment for rape and robbery with uh, violence imposed on one uh, Sarah Kamara. The court now sentenced it to 18 years for the offense of rape and another 18 uh, for the offense of robbery with violence. They would run concurrently. And um, delivering judgment, the justice, uh, uh, the Chief Justice Asan B. Jalo disclosed that the, app the appellant, Sarah Kamara, was on 26 August 2009 charged before Carnegie Magistrate Court on two counts of rape and robbery with violence but the case was transferred to the Special Criminal Court for trial. Justice Jallo said the trial was uh, presided over by Justice MBJ, that's Justice Jallo Research, which uh, comments on 12 November 2009. He asserted that the prosecution called eight witnesses after the appellant pleaded not guilty to all the uh, charges, and uh, he testified as a lone witness in his defense waaw mu ngi noonu nekk nag uh, beneen xibaar. bi nga mm-hmm. xamante ne ci réeb la taay moom affaire yi moom. dafa doy waar de maam ji depuis depuis depuis depuis. bi moom daanaka wala depuis last week daal daanaka. foog nga dégg benn report ci ci ci ci réeb. réeb bi depuis ci ah. tufa ba tey defe naa ne. dafa mel ni mu ngi mu ngi mu ngi mu ngi continuer. waaye kon moom lu waa tegoon na nag bii moom yàgg na waaw. depuis 2009. waaw ba léegi code bi mu ngi ci mu ngi mu ngi ci code bi. waaw dafa mel ni code bi. waaw dafa am li nga xamante ne mooy euh, waa gis nga dafa dafa dafa rëcc ci li nga xamante ne mooy ci life imprisonment dañ ko waroon a tëj ci ngir dundam. waaye nag waaw waaye loolu. Euh, am na tudd Sara na juróom ñett fukki at ak lu tëb. Euh, jotuñoo ne fi sa at de waaye. Hmm. xam naa daal li ci mun a wax moom mi nga xamante ne moom moom saara moom. Euh, fu mu nekk nii eighteen euh, years mhm. euh, dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko daan ci ñaar ci réeb bi ak ci li nga xamante ne mooy ci robre bi mhm. waaw bu nekk eighteen years waaye luñ ci wax mooy ñaari yëpp dañoo defan demandoor benn ah dafay dafay teddaale ah, fukk ak juróom-ñetti at ñëw tamit ah waaye loolu si si réeb bi la ñu tegal ko tamit beneen eighteen years boobu ci robre bi la waaye concurrent la mooy dafay tëdda rek ah. eighteen years ma ko gisee ma gisee eighteen eighteen bu bu njëkk ma ne waaw thirty six years waaye after ma gis concurrently ma ne ah waaw kon bii moom. eighteen years bi. Mm-hmm. lay lay lay tëdd waaye nag ci ci ci li nga xamante ne mooy nuñ ko waxee. ñaar yëpp boo ko boolee ci gàttal mooy daal mu ngi noonu thirty six years waaye comme. waaw concurrent bi la da nga gis ne guddi ak bëccëg lay nekk xam naa bu nekk uh, mooy loolu. Mm-hmm. ñu ñu ñu seet daal naka la Amadou boo xoolee ko waroon a tëdd lii di sa giiru dund ci kaso. buñ la waxee fukki at ak juróom-ñett ngay tëdd kaso moom xam naa ne <laughs> yow waaw waaye nag ñaawteef yu mel ni ay réeb moom yan nañu ci yàlla musal daal nan ko dàqalu